ah bu bu bu bu yembee rek inshallah ngeen dugg yéen wax ci seen xalaat parce que euh, nekk nu fi pour ñun kese nous sommes là pour vous servir mais également euh, nous sommes là pour vous donner du bien et le maximum alors reste coaché sur 5 TV. Mhm. Euh, ñu daal di àndoog yéen rek comme à la coutume ni ñu koy défé à chaque fois bu ma toogee fii Bintu day tok ciaba day tok kenn ku nekk indi sa xel ñu sotti leen. Mhm. yéen it ngeen jël lu leen ci neexul man ngeen woté ngeen répliquer. Mhm. ndax té ay doomu aadama rek nan mënu ñu joom du question ko dañ leen gën moo tax ñu tok fi wala sax dañu leen gën jang wala dara moo tax ñu tok fi mais xëy yalla mo dogal rek kenn ku nek ak fam la séddee ñun yalla ñu séddee fi ah, donc jaajëfal nañ leen bu baaxa baax encore ci àndandoo gi mm. ah, man li ma ci gëna metti moy fiñ ko défé ci jakk ji bint lolu lolu lolu mo metti ñep mais tamit gënu ci graw parce que man je me dis que na homosexualité ak fiñ ko mëna défé lu ñaaw la. lu ñaaw la man ta rafet mais ci seen biir nekk sax dafa ñaaw homosexualité lesbianisme lu ñaaw la lo xamanteni ak contre nature yoo xam ne boo koy xelaat sax. Euh, yenn yenn saa yi di nga ne lii est-ce que am na. Mhm. mu doon lu doy waar mu doon lu ñaaw loo xam ni. te de plus en plus ñu ngi koy xool ñu ngi koy gis ci ay lieux de culte ay cimetières. Mhm. foo xamante ne ay nit ñu dëdd àdduna ñoo fa tëdd. soxla ay ñaan ñu fay def ay mbiru yu doy ah yàggul dara. Mhm. gisoon nañ ko ci cimetière bu euh, Soumbédioune. ah bon yàggul yàggul dara. mais mais mais pratiquement euh, ci période corona bi aussi japon nañu ñaar ci grande mosquée bi. mais la tax ñu ñu yeb jakk yi ñoo oh, man damay faral di wax ni est ce que nekul tamit tektal parce que amna yo xamanteni ni man jàpp ma ni tayef la parce que ki rombu nek rombu wañ rombu douze. ñoo ba fi nga xamanteni ay kilifa ñoo fay seug mm-hmm. di julli nga diko def kon nak ñu bari ñu ngi xalaat ni amna ñu wax ni est ce que du walum sacrifice ku nek ak sa xalaat parce que fan yee passé rek comme le Binita wax japp nañ ñaari euh, euh, borom ñaari tur yi man mom mm-hmm. tamuma ma di leen woowee noonu <laughs> mooy loolu man mom ay gor jigen parce que ñooñu jaru ñoo sutural ay gor jigen nañ red da ngay romb rek ñu xala xalango jarul kenn di leen suturaal wa xam nga tey ji xoola waaw ñu yalla parce que ku dem ba fi nga xamante ni si nii ay walé ñu fa teddu ay nit ñu bax ñu fa teddu mhm. ñu koy défé fofu kon dal il est temps que ni ñu jël matu way xex lool parce que ni ma gisee nii mbir mi day gëna yok mais gisuma ni day gëna wañe day gëna yok gis ni day gëna yok yokk la gis aca dinañ ci ñew ci kanam ñu waxtane mhm. euh, ci côté yokkute bobu nonu ah, euh, bintu mhm. euh, ci grande mosquée bettoon leen fa. ci période coronavirus bi yàggul yàggul dara. Eh, ñu ñëwaat bettaat leen. ci eh, ci ci waaw ci mosquée bu Karak. Eh, cimetière bi mm. cimetière bi yëguma ko woon yaa ma ko wax. ah cimetière bi xaw na yàgg sax. te ñoom daa mel ni ñoom daa mel ni comme ni mu ko waxee daa mel ni tegtal la mais man dama jàpp ni du tegtal ci ñoom dama jàpp ni seen ban seen tegtalu bakkan la rek. Ah, man je me dis que ni tegtal la. tegtal la parce que lii mënta. mën euh, mën mën mën nit mënta bonee nii à ce point. waaw mmh. topp sa. non parce que bon nañ ba pare. mais attends bon ba nga maanaam ba nga ba nga. parce que ki bàyyi jigéen dem ci góor rek cagamu. bon nga bàyyi sa moroomi góor góor tamit dem ne dañuy bàyyi seeni moroom tamit dem ci xale yi. pédophilie parce que fii tamit gis na fi cas de pédophilie. Mmh. parce que mag bu 35 ans ànd ak euh, góor xale bu am 16 ans. Mmh. parce que kooku mën nañu ko jàppee xale ba léegi. ba pare tamit euh, ñu ngi wax naan comme li ma wax sànq yaayam moo ngi génn naan ay àndut ak xelam parce que foofu noonu ci koñ ba ñëpp seetlu nañ ko ñëpp xam nañ ne parce que ci fi ñuy jàngale alxuraan fa la nekkoon mais dafa mujj génn parce que xel mi neexul. mais euh, euh, ku mag ki ku mag ki moom tamit nee nañ daf doon jàngale alxuraan ustaas la. day ko kay di ustaas. dafay jàng mais. noonu xam nga Sénégal fii noonu lañ. tàmm di tuddee ñiy jàngale alxuraan donc doon laa xam ne tuddee parce que dafay jàngale alxuraan mais je ne pense pas que ne yegg na ci xol. ok mbindeef la goo xam ni moom rek xalima bi ko yàlla binde mom rek la ko binde binde ko keneen damm sànni na comme li Binta wax rek peut-être bu fekkee ni nit ñi ñu ngi wax ni bu ndaw bi ki am 16 ans moom tamit xel mi neexul ba tey ma wax li ma wax sànq rek ma ni la parce que ki xelam neexul. Mm-hmm. nga ko ci juma. Mm-hmm. di ko def yenn ni parce que am na yoo xamante ni man jàpp na ni ku sa xel neex sa doo ko nangu bañ di la ko def. Mm-hmm. moo tax na damay xaw a ci côté boobu peut-être yaay ji mun wax mais dafa xam dafa doy ba pare dafa neex da ngay fekk nit muy bu sax mu la wala

c'est trop. Oh, mhm. euh, pédophile mais c'est trop mais nañ y a mais yow hmm. hmm? deux ans. deux ans deux ans. <laughs> non moom nag problème bi mooy moom nii la mel ak man may mais dañ bah, toi qui me dañ mais dara dama lay laaj ñaataat nga am. ñaari deux ans d'accord dama lay a loolu donc son plateau kon lii may def rek erreur parce que toogagul wax loolu xamante ne jaarul yoon yow lañ koy taf non mais lii erreur bu ma xamoon ni bu ma xamoon ni deux ans doo toog sama plateau de parce que lii lii lii lii la wóoru déli la lii waa Sénégal bu ñu ko yëgee sax coow mën na am ci ci ci ci mbir yi parce que baal ñu ah, ok acca ah, Thiaba ah, ah, comme ni nga ko waxee léegi nga ni dama dégg léegi sa biir wax nga ni eh, affaire bi ci la jëm. Mhm. ci la jëm parce que gis naa ni dafay commencé bëri Sénégal parce que dëkk bi moo nekk dëkk boo xamante ni ñii dañuy nangu ñii di bañ. Mhm. te bu ma xoolee ci wàllum côté boobu ñii nangu sax ñooy xaw a ëpp ñuy bañ. Mhm. parce que loolu daf fi bëri ñoo xamante ni lañ te dañ koy parce que gis ko xamante sini si ni jabaram te borom ñaari tur yi la. dañ koy mbuboo dafa bëri buñ foog ni non li may wax fu leer laa ko teg nee ko hmm? daw ma ci fu leer nga ko fu leer ko foo teg fu leer gis ko ak wóor ma wax neena la duma wax lo xamni ne ma gisuma dañuy ñi feñ lañu gis. Hmm. mais ñi nebuto upp Mm. parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi seen biir kër yi te ñoom la am na ñoo seen jabar ay borom ñaari tur yi lañ xale yi feeñ la ñu gis. Mm-hmm. ah bon waa yor seen i jabar. du jeex léegi xam nga bu njëkk ba borom ñaari tur foo ko ne jàkk xam ne kii moom la. parce que mm-hmm. daf koy doxee. Mm-hmm. daf koy waxee. niru na ko saful góor jigéen lay saf mais mais mais attends mais mais mais attends mais attends foofu mais attends foofu aussi foofu aussi foofu fa trompé wu. waaw foofu tamit que am na parce que am na ñoo xamante ni du ñu du ñu borom ñaari tur yi mais yalla mo leen bindee non soit dañuy nature la si ñom quoi soit dañuy jigen da leen di yar mm-hmm. ñu dem ba am habitude bi soit dañuy juddo non mais mm-hmm. euh, ay góor nañu góor piir nañu waruñu ben waruñu benn góor sen jigéen seen jigen jigéen nañuy wër mais pas góor motax tax xamé mm-hmm. xàmmee leen du yom parce que léegi dañuy doon ay góor saf góor nek ay kilifa tek ci entraîné ba ceen dégg na ah? dégg na dañuy entraîné ba ceen léegi moy li mala wax sank rek yow même même en dehors de Sénégal fini boy booy Amérique ñi nga xamante ne ay borom ñaari tur lañ booy seetaan ay émission foofu noonu ay borom ñaari tur lañ mais da lay leen da boo leen boo tase woon ak ñoom si mbedd mi hmm. jamais doo ko mës a xelaat ni que ay hmm. borom ñaari am na Sénégal parce que dañuy góore te Sénégal fii tamit léegi méthode boobu lañ adopté hmm. dañuy góore saf góor nekk ñëpp di tudd ci réew mi te terewul ay borom ñaari tur lañ am ay jabar am ay doon yenn saay seeni jabar xam ñi ci li ñu nekk parce que tamit ay xaalis bu bari xaalis bi daal la ñu ñor seeni jabar peut-être euh, tàmmal nañ leen benn benn benn vie boo xamante ne vie de luxe xëy na dañ naan c'est pas grave. mais xalaat nga ni est-ce que xalaat nga ni seen jabar yi xam na ñoom. borom mais yenn saa seen jabar yi duñ ko xam. Mhm. te léegi. xalaat nga ni xalaat nga ni jigéen bu baax dina dina sëy ak borom ñaari tur. fala fala nii. léegi man gis naa ci benn cas boo xamante ne nii. waa ji ki naan chaque jour sama doomu nday la. Mhm. moom laay àndal mooy sama meilleur ami présenté ko jabaram du ñëw këram guddeeg bëccëg suba ngoon jabaram jàpp ne kii mooy jumeau jëkkëram mhm. dafa xëy benn jour bett leen ñoom ñaar ndekete mhm. kooku mun naa sama jumeau sama meilleur ami sama nàngam sama sàngam mhm. moom euh, mooy amaawam entre guillemets donc léegi noonu noonu lañ koy dundee. Mhm. dañuy saf góor niru góor ne la kii sama xarit la bu nekkee koppi nam wala jabaram. Mhm. ñu présenté la ko ne la kii sama ja sama sama xarit la jàppal ma ko te fekk ne ne waajooju noonu mooy. mooy waaye waaw fekk na waajooju mooy fekk na mooy loolu jaba. Euh, xalaat nga ni jigéen bu baax dina sëy ak borom ñaari tur te xam ko te xam ko. te xam ko du fi jeex parce que nee naa la ñu bari xoolatuñu borom ñaari tur la ak borom benn tur bii la ñuy wër bii. ñu ci bëri bii la wër parce que am na ñoo xamante ne xoolatuñu lu nit doon dangay nekk ak sa jabar mu leer ko ni sama jëkkër ji mu ngi am lu muy def ci suuf te mm-hmm. teewul da koy togg waale mm-hmm. ñoom jox leen xaalis rek ñu noppi mm-hmm. jigéen ñaa ngi koy def du jeex mais am na ci ñoo xamante ne ñu ngi toog di sëy di muñal seen jëkkër yi di góorgóorlu te xamuñu ni seen jëkkër yi borom ñaari tur lañu parce que mën na ko xamee ak doy waan ndax nee naa la man lu may wax lu ne rek ci maa fekke maa gis wala maa dégg lay doon ndax man nee naa la du ma créé sos l'enfant chéri de Mbour géej bi wax rek da koo gis. yow da ngaa doy waar. damaa garaaw dangaa garaaw. ba pare ma raxal la ci ni la nag sama maama ma yar déggaan laay ndekkee di ko añee di ko reeree. pardon du neex xam nga ni Bineta ak yow mi fu ñu toogee fu ne rek foofu dina mel ni okkum cooli mbaa daan tu sa ban gu sànjëreen. pardon li ma la wax rek dafa am. nga ni ma barki tey ah. gis nga ku la sutam lees non pare ba pare yàq yenn xale yi parce que xaalis bi ngay fekk xale bu toog jàpp ñàmburam nga wan ko góndi ko ci xaalis mhm. dama ko gis li ma lay wax nii dama ci teg sama bët yow dama ko teg sama bët yaay fekke lu ne maay fekke lu ne ndax damaa yàgg jur <laughs> yàggu ma sax waaye nee naa la sama maama a yàgg dangaa doy waar te lem bu ñu xent boo leen meew suukar ba mu texee la may jox may sangoo saa ne lem bu ñu xent lem bu ñu xent uh-huh. boole ko ak meew uh-huh. suukar ko ba mu texe uh-huh. moom laay sangoo saa su ah di nga liggéey ko de <laughs> di nga saf saf <laughs> doy na waa da nga moytu weñ yi rek <laughs> ah bintu man ko na nga moytu weñ yeeg yemb yi rek ndax kii la mu sangoo daa doy waar doy na waar waaw gars yi dañ lay mbiiw de euh, bintu euh, coowal criminalisation lu jëm ci ñaari tur yi Euh, taxawaloon ko assemblée nationale. mais jàllul dañ ko rejeter mm-hmm. ban gis-gis nga am ci lolu ak lan lay signaler ci Sénégal man je sais pas comment lan la ko meuna commenter. Mm-hmm. parce que le toll ne borom ñaari li président taxaw mu mi xam mooy jiitu ñun ñep né li du fi amé mm-hmm. manam duñ leen may doole ci réew mi. duñ nangu seen droit. ñu yobbu li nga xamantene moy loi bi assemblée. au passage wa euh mu tuddati

homosexualité même ci télé yi da ngay gis buñ dawalee lu jaarul yoon tamit mm. dañuy gis automatiquement dañuy mm. daal di mm. taxaw wax muy la am solo loo xam ne réew mi fi mu ne li xale di wax rek lu tolloog lu tolloog lu tolloog coowal góor jigéen ñu yóbboon ko biir assemblée ñu rejeté ko waaw ñu rejeté ko mooy li ma lay wax rek loolu kenn xamul na lañ ko war a mën a jànkate mm-hmm. man de ma part man je suis bouche moo tax si ñëw ñëwuñ ko eh, Thiaba oh. sa gis-gis ci Euh, criminalisation euh, boobu ñu sama gis-gis dinaa ci yaatal tuuti li tax ma ci yaatal mooy li ma wax rek dëkk bi kumba am ndey la ak kumba amul ndey mhm. parce que ñooñu